Morales del lak euh, lakk bu metti momo askan wi nek ci Thiès rawatina ñi nord ap ben boutique wala cantine rek bo day jaay pièces détachées ak ay moto mo jek rek ci euh, euh, novembre place pour pour ko ñi ño xam Thiès su station essence bi. di jëm euh, yoonu Tiwaawoon euh, su ngeen weesoo pharmacie bi rek place bi euh, laata ngay egg doo daan bi fa la nekk place boobu nag nekk na place boo xam ne askanub Thiès ràññee nañ ko lool ñu gis ne nag bi lakk bi amee comme niñ koy faral di defee rek waa sapeur pompier ñoom la ñu yaakaar ndax lii mooy seen liggéey ñoom nag daal nañ ñëw ak seen jumtukaay ngir dal di eh, fexe daal eh, ba xam ba la xam ne moom moo jëm ci lakk-lakk boobee eh, ñu daal di ko fay ñoom nag ñu ngay wone seen jàmbaar ci kanamu nag askan bi xam ne ñoom de dal dinañ jaaxle lool taxaw rek di seytaan ndax ni ni mel mënuñu ca dara ñu gis ne nag lakk-lakk ya di wéy di tàkk saxaar sa di wéy di jolli foo toll nag ci dig digal googee nga koy seen nekk na loo xam ne comme lay tubaab di wax spectacle désolant euh, nit ñi nag euh, dawee fu nekk di xool rek euh, lan moo xew ci bërëb bi nit ñi takku woon lool mu nekk loo xam ne nag lii dañ koy faral di nemmeeku ci Thiès ci weer yi weesu sax jotoon na am lakk-lakk bu metti amoon nag fii ci wetu rond-point Jaxaaw nekkoon nag benn cantine boo xam ne wala benn place boo xam ne dañ fay defaree frigo ak di ko fa jaay lakkoon nag ba matériel yu bëri daal di Uh, Nak ñu uh, gis ne nag camion sapeur pompier bangi nonu noonu uh, ak sen jumtukaay ñu daal di tawi sen raakool ngir jàmmarloo ak lakk-lakk boobe ci nag ci noone nag lañu def ay pexe daal ngir frayer chemin ngir mën a accéder ca biir bâtiment bi ñu gis ne nag pour dugg ci bâtiment bi yombul ndax dafa am foo xam ne nag amul bunt comme liñ tubaab di wax porte dérobée euh, ngir ñu fa yéene jaare noonu ngir kare euh, euh, takk-takk lakk-lakk boobee ngeen seen nag saxaar si di jëm ca kaw la jëm nag ci devanture place bi liñ jëm ci wàllu bâche yooyee xam ne bâche publicitaire lañu sax ay panneau jot nañu lakk daal ba daal jàpp nañ ne kenn dootu ko mën a jëfandikoo Eh, ñu gis nag nit ñi jigéen ñeeg góor yëpp ñoom ñuy eh, taxaw di seytaan eh, di xool rek ana lan mo xew fi ci wetu rond point gent ci bërëb bi xam dal fa la doon jaay moto dal di tak sapeur pompier yang yaa nonu ni def sen consigne ngir fexe rek ba ni ñuy daanee ni ni mel borom place bi nag seen ngeen ko sànq moom moomee moo taxaw noonu ndeysaan nek indifférent manul manul dara nag ci li xew Euh, ci euh, bërëbu liggéeyukaayam bi euh, moom nag dafay constater rek flamme yi ak fume yi loolee nekk nag benn jafe-jafe benn waay nag ñëwoon bokkoon ndax dafa doon seytaan xaw ma sax jot na faa ñëw daal ba am xawma lan la fa wax ak lan lan la fa doon fippu daal ba mu bëggoon jàmmarloo ak ñi xam ne ñoo yor kaaraange bi di police di policier yooyu ñu gis ne nag moom nag jot nañ ko am na xëccoo sax ba euh, ñu euh, xëccoo jox dox nag moom euh, ak policiers yi ñu santante ay jokkalante ay kàddoo ba daal nit ñi daal daw di daw di xool rek ana lan moo waral li jëm nag ci wàllub kàddu yooye policier baa ngi noonu xaw koo topp xëcc ko waa ji nag fippu ña xam ne ñoo fa nekkoon nag daal di fexe daal ba arranger lépp ndax lii de mooy li am solo ndax ñëw wàllu si ca la jëm nag ci wàllub Euh, jéya ba daal nit di fa euh, daal di indi loo xam ne demeewul noonu euh, kenn nag du ko rafetlu sapeur pompier yaa ngi noonu ñoom nag ñuy béy wàllu am solo ñu jàpp ne daal place bi la fa jot a lakk na lool suñ ko xayma ci njalbeen daal lañu ñu jot a ci wéwup béy ne li jot lu tollook ay millions jot nañu tàkk ci bërëb boobe dawalkatu moto yi oto yi romb askan bi xam ne ñoo génn nii di seytaan ñoom ñëpp seen bët rek lañu am di xool ngir daal jaaxle lool euh, ci li nga xam ne moo am fii ci wetu rond-point nit euh, ñaa ngi noonu nag euh, takku lool takk-takk euh, ba di wéy di takk euh, la jëm nag ci saxaar sa di wéy di jolli ba foo tollu nag ci Thiès wala ci digg digal googe mm, di nga mën ko di ko seen ba xam ne daal am na nag lu jot lu jotax am ci bërëb bi euh, ñu gis ne nag oto yaa ngi noonee policiers yi di defar circulation bi mu nekk loo xam ne nag doy na waar waa pour pompier ngi nale ngeen di seen ñoom nag di wéy di wone seen jàmbaar walaata ñuy doon a jóge nag ci bërëb boobu gis nañ ne sax ña xam ne ñoom ñooy wàllu si ñu ngay euh, def ay bëtt rek ay euh, prox ndool ngir daal daal di accéder euh, ca biir bërëb ba wala ñu daal di jëmmal benn porte dérobée ngir mën a fexe daal ba daan tak takk boobee xam ne am fi ci Thiès mbokk yi daal loolee wala lii lañ leen jëlaloon tey ji ci wetu rond point ngent ci benn tag bit ben place boo xam ne jaay pièce d'état ak Jakarta doon takk nag tey mu nekk loo xam ne nag lu doy waar la askan ba nekk ci zone nord ak waa duñu du a fàtte mukk bésup alxames gi di juróomi fan ci weerub novembre mu nekk loo xam ne nag day wéy di am la jëm nag ci wàllub bërëb yuy làkk waaye nag sapon pompier bañ fay jóge daal ñu ngay def seen kéemtalaay kattan ngir daan lakk-lakk boobee.